jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di leen jox jaa di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay kóolute gi ngeen def ci ñun du leen koy delloo bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii ci arène nationale toog ki nga xamante ni mooy général Malika général Malika nekk ndaanaan boo xam te ñu ko félicité sax avant tout ci drapeau chef de bi gis nañ la mu fa jot a def nekk ndaanaan xale boo xamante ni saa bu compétition amoo compétition amee mu dem fa wane fa boppam compétiraale fa euh, tàggatu fa waale bu baax a baax ñu gis na nag amoon na combat boo xamante ni doxoon na ci digganteeg moom ak Fils la daaw combat bi taxawoon avant corona bi bu combat bi jibsee ba mu des une semaine xaw ma deux semaines euh, ci la corona bi ñëw làmb ji yàqu ñu continuer nekk seen wàccaay di entraîner ba combat bi bi desaatee une ci lañ am benn information boo xamante ni jugee na ci ki nga xamante ni nii mooy Fils de Balla ñu ne Fils de Balla dafa blessé dafa am blessure tey nag ñu tax ñu nga xamante ni mooy Général a waaw waxtaan ak moom ci li nga xamante ni jot na fee jaar ak lépp. jaajëf xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo euh, ñu wéyal waxtaan wi. Zé nuyu naa la di féliciter avant tout. oui Ouzin merci. ñu ngi lay siyaar ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu suñu sëriñ di nuyu waa Malika yëmbal buun waa Kër Masaar waa Montagne waa Mbëbës waa àll ba ñaax di nuyu suma gaay ma àndal di nuyu képp kuy bëgg général maa ngi lay nuyu di nuyu waa diaspora bi di nuyu ñëpp ah. mais ñu gis euh, drapeau chef bi dem nga fa euh, teewaloon sa sa sa sa dëkk def individuel bi wane ci sa bopp bu baax a baax daal comme na ko daan defee. waaw sant yàlla rek di wax ni ñun ay ndaw lañ te làmb la ñuy dund làmb lañ gëm képp ku nekk ci dara ba mu tax laa bàyyi dara rek yaakaar naa dara jooju war nga cee wane fulla ak fayda te yaakaar naa ni làmb moo tax ñu bàyyi lépp kon tey ji ni jàpp nañ ni lépp luñ ci def rek dafa war ndax li tax nga bàyyi lépp rek bëgg ci dara moo tax te yaakaar naa ñu ci tànk yi di ko sante yàlla di ñaan yàlla na yàlla xeeb dolli. mais keroog bi nga demee drapeau chef de l'État nga ba jël ko bi nga dellu see boobu mooy première fois bi nga ko jël wala boobu mooy deuxième fois. waaw ñaari yoon laa ci a mës a participer ñaari yoon yëpp yàlla ak may suturaal ma ci am ndam di ko sant yàlla bu baax. deux fois laa ci participé sama première participé dama cee dama cee jël ndam deuxième bi tamit noonu la demee di ñaan yàlla dolli ma suturaal ba lépp lu ma mën a mës a participé ci làmb rek yàlla defal ma ci ndam quoi. mais avant avant avant drapeau bi dama ñëw laaj la ba xam da nga dem nga ne ma non non talu ma ko damay jub combat mais ñu jékki-jékki gis la ci biir làmb waaw waaw waaw xam nga li ñuy wax rek des fois da ngay toll foo xam ne da ngay am staff ñoo naan la defal nga def bàyyil ma bàyyi ndax tolloon naa foo xam ne jàpp naa ne fi ma tolloon dama war a yokk samay poids yok affaire yi par rapport ak poids bi ñu war a laajte pour nga mën a bëre chef de l'état dama ko ëppale woon lu bari mais après staff bi waxtaan nañ teel a xam xam ni maanaam affaire de compétition la kon tey war naa cee mën a dem bëre ndax xale laa ma jël risque wàññi sama pois dem ngir bëgg pour compétir mais au début gars yi bëgguñu woon sax dama bëggoon concentré wu ci combat benn rek. Mhm. waaw mais ñu gis nga jógee ca daanaka sax da doon da nga doon waaj sa sa diggante ak yaa Fils de ndax foofu moom ku ne xam na ne contact bi dafay jéggi dayo mais nga jógee ci loolu ñëw continuer di waaj sa combat yaag yaag Fils de Balla naka nga ko doon waajee. waaw waaj lu metti ndax ba ma jógee ci chef de l'état bi dañ dañ ma stabiliser damaa demoon damaa demoon ba damaa mujjee jël ay perfusion pour mën a nekk. ndax damaa feebar carrément ndax dama see jógee ñëw sonn presque chef de l'état bi dafa jeex ci guddi gi ñu naan nañ dafa naan ba suba man leen damay ñibbi Dakar ñu ñibbi Dakar ma egg mel ni ko feebar mais lépp pratiquement mais kenn xamu ko ci man. Mm-hmm. ma obligé waat xëy gars yi wax na ngay noppal man leen aw ma temps récupéré man na laay jógee ci tournoi bi presque quinze le treize laa war a bëre làmb ji jeex la trente et nga war a xëy muy la premier kon dugg nga ci sa semaine matul sax 15 jour 11 jours moo ci des a ci des. ma ne leen mënumaa noppalu jël samay perfusion nekkaat ci samay entraînement ñu ne déet waaye dama ñëw armée mun na maa seede dama ñëw tey ñu xëy suba ànd entraînement. gars yi naan ma xanaa wéeru man leen dara lii mooy suñu gëm-gëm lii moo tax nit ñi xam ñu lii moo tax nit ñi bëgguñu tama jëm ci bés bu rëy amatul lu may toog di xaar. après ma ñëw feebar dem jël ay prévision nekkaat ci suma bopp te moment boobu lu ne xajoon na ci mais dama ko gérer vraiment nekkaat ci nag nekkaat ci combat bi. ba nekk ba am benn petit voyage bu ma defoon man ci voyage bi laa jékki-jékki gis gars yi sama yenn supporters yi ne ma stade bi ñu gis nag nu mu demee man leen lan moo xew. danaa man noo dégg nañ lii man leen ah loolu de yëgu ko man maa ngi waajal ba pare loolu laa ci ama ah. kon moment moment bi ñuy wax ne Fils de Balla dafa damm boobu fekkuloo Dakar. fekkuma Dakar ndax am na ñu ma woo ne ma def na benn émission. Mhm. yaakaar naa Lamine moo fa demoon. Mhm. mais man mënumaa gëm ni nga def émission tey xëy suba ne da ngaa moon daal loolu la sama xel nanguwul te ba pare ci biir damm bi munoo damm di génn di dem voyage yi munoo damm ba pare génn nekk sa koñ di dawal mboto di doxi say soxla waaw. man nag gëwuma ko mais après dañoo woo suñu staff ñu ne amaguñ benn information ci CNG ci mbër mu war a bëre dimanche ba vendredi démb ci vendredi bi la ma sama manager di soog a ne ma xaw ma waa CNG nee nañ après moom dañ ko convoqué. comprendre ko bañ ko convoqué ñu dem yóbbu ko xaw ma ñu ne am na médical quinze jours ma ne nag man damay laajte Sénégal quoi ndax dam damm moom 15 jours lay diire wala. ñu ne am na médicalu 15 jours. 15 jours loolu laa am démb information ndax man damaa prévoir woon dimanche ma ñëw remplir sama contrat. maak suma staff gars yi dañoo pare li ñu war a pare yëpp Malika yëmbal benn baraag buun Kër Massar waa Kër Massar ñoom tax nañ seen affaire di waajal Malika tam kenn mënu laa wax ndax képp ku doon financé ci làmb ji financé nga ko man moom li ma ci def du ma ko wax. ndax bu fekkoon chef de l'état dama faa demoon compétir yàlla may ma fa teraanga jàpp leen ni teraanga bu ma fa am jël naa ko defaat ko ci làmb ji toog di xaar kon bu demee nii day metti quoi doon ay ndaw bëgg bëgg a jëriñ dara suñu bopp bëgg a jëriñaale ñi ñu yaakaar comprendre nga ngay sonn ci benn mbir mën naa ni deux ans nga toog dafa di ko xaar dafa metti ndax ñun ay jullit lañ te te ñu gëm ndogal lañ te àdduna am ak ñàkk moo fi nekk yàlla mooy yor dernière décision bi mais lu nit di sabab nit ñi xam nañ ko lu suñ borom ndogal luy jugee suñ borom nit ñi xam nañ ko. comprendre nga kon nag fii ay dof nekkuñu fi ndax sa ak jour koo war a bëreel mu doon sa adversaire saa boo xëyee ci lu mu nekk ngay lijjanti. ci li muy dox ngay lijjanti ci lu mu nekk ngay lijjanti kon fii réeroo munu fee am naxante tamit munu fee am ñun xam nañ lépp mais dama leen bëgg a xamal ni man ndaw laata damaa nekk ci yoon te lamb daf maa yaakaar kon du fi toog deux ans di xaar benn adversaire lii moom man maa ko wax man maa leen le treize bu bu jàllee dootuma dootuma bëre fii sa bala te li tax ma wax ko man xam naa ko promoteur bi moom xam na ko. mais sa diggante yaa fii sa bala général est-ce que neex na pousse parce que euh, bi ngeen fii ñëw di def seen jàkkaarloo rek keroog stade bi ñëpp seen xol dafa sedd ndax dañoo xam ne làmb ju neex la làmb ju neex la mais est ce que est ce que même bu dul même bu dul fils de Balla le treize bi bu jàllee est ce que mën la doon nañ la wutal benn adversaire avant tout. avant ma doon proposé bëri na mais xam nga man gor laa te kenn xamee ma ci ay détails ak ay wax bañ na ko ba yëfu ñàkk fayda du ma ci dox yow lu ma wóorul sax wala lu ma xamul du ma ci wax mais dama ne dafa doon contrat boo xamante ne promoteur bi liñ ci waxante woon dafa bëri. Mm. liñ tënkoon tam dafa bëri man mënumaa jóge ci combat ñu ne Covid dugg na. moo koy waaj ak samay propre moyenu bopp. te Covid bi ba mu ñëwee fii dañoo ñëw jël promoteur yeeg yeneen gars yi jox leen xaalis ne dañ leen di suspensionné mbër yi dégg ngeen benn mbër bu ñu jox xaalis. te teewul suñu propre moyen ñu ne jàppaat nañ combat bi ñu continué waat bàyyi lépp luñ jàppoon jëlaat suñu moyen di def ci combat bi te amul lu ñu jox ne la lii ñu ñëw la ko yokkal loolu dafa metti te ñu doon ay ndaw di sonn ñu dem ba mu toll fii nii xam nga ñu naan dañuy utal yeneen adversaire ñu jëngoo jër risque bërig yeneen adversaire dom ba dernier moment ñu naan adversaire yi ñu bëggoon joxaat laaj nañ lii jox nañ lii yooyu du ay wax yu tegu ñun instant bi nii ñu ngi nii fi mu toll nii dañuy nekkaat ci yeneen xaar loolu ñun mënuñu ko. kon fi fi mu toll nii yan décision nga nar a jël da nga na toog xaar ñu jàppalaa beneen date wala da nga bëgg a pare ci làmb ji. non décision bi ma jël moom mooy waxtaan naa ci ak te ku ne xam na ni dëkk bi dafa am yoon comprendre nga décision yi may jël moom man nekkuma fi ngir benn adversaire entraîné wu ma pour benn nit dama fee nekk pour làmb ak li làmb bëgg ma ci dox. comprendre nga adversaire bi comme booba léegi ñu ngi ciy wax mu demee nii man li ma mënta comprendre sax adversaire nan nga war a bëreeg mbër ngay dem bay am ak détail promoteur ba mu lay yónni yóbbu gendarme naan da ngay bëre far force te loolu yëpp xew na ci combat bi te ñu bëri yëguñu ko. loolu am na ci combat bi mbër bi ngir bañ a bëre ñun ñu taxaw rek kenn mësuñoo dégg ñu wax. musuñoo kaas ci dara musuñoo laaj ci dara. kon bu demee ba fii ñu yàq ko yàq boo xamante ne kenn xamul fu mu jógee man nangu naa ku damm ñu teg la nga yor sa beeke wala nga yor sa puus-puus wala nga toog ñu xam ni yow ma da ngaa damm mais ku damm di dox loolu est-ce que damm xam damm nañ ma dimbali ci loolu. kon su ma déggee wax ji daal danga nga bëgg a wax ni li li li Fils def ay tapale la. ah li muy def moom moo ko xam man daal benn point laay wax dañ ne dafa damm ma ne leen damm moom kenn du ko def di dox kenn du damm di voyage kenn du damm di dawal moto te information yi fu ne lay jóge comprendre ko te daf ñoo leer ñi moom dara am umpuñu saa bu ñu xëyee dañuy xam ci lu mu nekk. kon nag dafa am loo xamante ne pour man du yëf gor man tey su ma jëloon avance bu bombardier bañ ne suba ñu àdduna yëpp ne ma dañ lay dóor nga daanu billaahi wallaahi ma ñëw ñu dóor ma ma daanu moo ma gënal may yàq lamb ci man loolu laa gëm boog man see. kon fi mu toll daal euh, li la metti bokk na wàccaay bi. nga ñëw ba au dernier moment làmb ji yàqu kenn waxu loolu leer xamuloo naka ngay taxawee. ba imaginer la waa làmb ju yàqu ñuy wër di la wutal adversaire naan la dinañ la jox kii suba dinañ la jox kii régaliser nañ adversaire bee waa nan ngay régaliser adversaire bee nga xëyaat suba adversaire boobu ne lii laa laaj yokkal leen xanaa kay balaa ngay régaliser dañ naan déggoo nga ak adversaire boobu ba pare ñu expliquer ñu loolu ba pare ñu toogaat di xaar dem ba dernier moment ma gis ay signature man kenn woowu ma wax ma dara damaa gisaat ñu def yeneen signature te man defuwaatuma signature ma xam ne man dèjà combat boobu génnee nañ ma ci. amaatu guma tamit benn information bu jógee CNG ba vendredi ku war a bëri dimanche vendredi ñu ñëw naan la médical génn na 15 jours. démb mooy vendredi. démb mooy vendredi médical 15 jours. jours ñu yàq ci làmb tamit nañ waxante dëgg te yàlla tax. am na ci loo xam ne tamit ñun bu ñu leen ko nangulee sax war nañ ñoo yërëm ci benn côté te xam ne ay ndaw lañ te dafa am dafa am ñu nekk suñ ginnaaw yaakaar ñu ñu doon ay soutien di sonn ngir suñuy waajur ak ñu yaakaar kon tey bu demee nii dafa dafa dafa métti quoi dafa métti trop. gis ngeen mbokk yi ñu fàttali leen ko suba di dimanche ci la moom mi waroon bëree ak ki nga xamante ni mooy Fils de dem démb ci lay doo ko jot information bi nga xamante ni mooy Fils de Balla dafa dam am na médicalu 15 jours mais bu loolu weesoo làmbam moom ak Fils de Balla fi mu toll nii mënatul nekk mais fi mu toll nii nekk sa diggante yow ak kan nga gis ne làmb la. grand yaa ngi fi amuñu combat te ñun ay xale lañ te ku ne xam na ni quatre avance xew na fi grand contre petit xew na fi lu ne xew na fi di ñaan yàlla rek utal ma yàlla di ñaan yàlla ñu utal ma combat bu gën ci man combat bi gën ci man mooy ñu jox ma góor yàlla sampion mais mais général nag fi nga toll ci làmb fi nga toll ci làmb mën nga ne kii mooy sama adversaire. non non na tey jii nii bëri na xam nga instant bi nii fi làmb ji toll liñ mën rek mooy tàllal loxo ñi ñu mag. Hmm. ñu ay xel yu mën ma ñaar Mhm. ñoom la en temps gi fi damay laajte nag Zarko ndax am na combat wala amul combat. Zarko euh, gis naa ko ci euh, open press Fourrière. waaw damaa dégg ni ñëw na moo tax may laaj bu fekkee amul komba di ko ñaan chance rek. ak góor yàlla man sampion bëggu bëgguma làmb ju yomb. wax dëgg buñ ma mënul jox champion wala ko am wala mbër mu soxor buñ ma utal combat waaw mbër laa bëgg mbër ndax préparer combat dafa xaw a metti quoi te da nga daj du ne ñëw muy demee nii lii baaxul ci mbër mu nekk ci yoon quoi. voilà ndax gars yi dañ ciy jàpp di ci sonn bu baax a baax. man waxuma la man sax mais gars yi lépp lu ñu waroon def def nañ ko damay sax ruus sama booy yi nga xam ne ñoo nekk koñ ba gars yi ñii dañoo defar ay blouson quinze mille ñii defar ay t-shirt dix mille ñu waaj lépp barki yeneen yàlla Mohamed ba jeudi bi ñu waroon def open press le dix bi ñun ñu ngi jàpp ne dañuy def open press. man boog man damaa part personnel man boog dimanche damaa naroon tax ndax dama ne. mënoo woon gëm ne doo bëre dimanche. billaay wallaay wataalaay position boobu laa toll. damaa damaa feebaraat nii yàlla xam na ni damaa feebaraat te li tax ma feebar ko mooy stress moment bi ku ma xool xam ni ci li ma nekkuma quoi. billaa wallaay mais nag yàlla baax na quoi. ñu nangu dogal li rek euh, gërëmal ñi nga xamante ni jàppoon nañ ci combat bi ba fi fi fi bi toll nii nga gërëm leen ñu tàggatoo ba beneen. waaw gërëm bi di ci jiital rek. Euh, maire yëmbal Daouda Ndiaye vraiment gis nañ taxawaayam ci ñun mu ngi jàppale oyof na wàccee na boppam ba ku soxla gis ko mention spéciale Daouda Ndiaye gars yi autorité yi nga xamante ne ñoo nekk benn baraak laay jóg maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax Mansour Sow ñu ngi koy sant. yaa ngi may dégg ñi nga xamante ne nag ñoo may jàppale samay nitu bopp aw ma seen fay waa waa Espagne ñoom Ahmed Fall Zoungule ñoom Modou kan gars yi xam nga dañ may jàppale Pamatar borom Kër Massar tamit moom mafia bi foofu ñoom nomba gars yi ñoom Sepp Norvège booy nekk foofu yëpp gis naa seen taxawaay ñu ngi may jàppale bu baax a baax a baax waa agent d'hygiène nag service d'hygiène yàlla dafa dogal man maay seen mbër mais xam nañ ni man maay seen mbër ndax seetaanuñ ma ñu ngi may jàppale bu baax a baax a baax Diop gis naa taxawaayam ci man franchement parler baara gis naa taxawaayam ñoom ñoom Mbodj gars yi yëpp gis naa seen taxawaay Mbodj xoolal chauffeur camion yi chauffeur benn transporteur yi dañoo nekk sama ginnaaw di ma dooleel di ma jàppale ma leen di ñaanal bu baax a gars yi mafia bi ñi ma doon àndal ñoom ñoom ñoom Dial ñoom Cheikh Tidiane booy koñ ba boo yëpp aw ma seen fay ay ñoom Dev Kaana gars yi dañuy jàpp ci man bu baax a baax a baax a baax taxaw ma ñoom Papa Sall papa aw ma fayam su ma amee combat dama ko yërëm day stress comprendre nga boo ba léegi gars yi xam nga dañ waaw dañ dañ may dañ may dañ may ñaanal barki yonent yàlla Muhammad di sonn ci man kon aw ma seen fay di leen wax ni yéen ji gis naa ko taxaw bi gis naa ko. comprendre képp ku ma jàppale sa lamb ji képp ku jëloon dërëmam def ko ci lamb ji di ma jàppale sant naa la Mbodj Mbodj président chauffeur de benn gis naa taxawaayam ci man moom it mu may jàppale bu baax a baax a baax a baax dama naan buñ limee dañuy juum ndax ni ci jàpp vraiment bu ngeen bu ngeen ñëwoon ren ren sama combat bi wallahi azim ngeen di xam ni général dafa am ci loxo yu mu nekk ndax moment bi waa Yëmbal fi ñu ma teg ak waa Malika wa benn barak Kër Massar niñ doon waajal lamb ji moo doy waar looloo tax affaire yi waa benn baraag waa buun billaahi wallaahi wa taalaahi mais nag sant yàlla jaam ak pexem yàlla ak dogalam di leen wax di fi ngeen jàpp foofu la rek bu leen bàyyi ndax ñun ñu ngi seen ginnaaw mbay transitaire tamit gis naa taxawaayam moom mu ngi ciy jàpp bu baax a baax Cheikh si Cheikh gendarme borom Gambie moom it gis naa taxawaayam vraiment mu ngi ciy jàpp sama gaa yëpp ñoom aas gaa yi may gaa yi may yëpp sant naa leen billaahi wallaahi wa taala ndax dafa bari tey ji damay toog sax di am problème ñi ma war a wax ndax gaa yi dañ may jàppale fu ne waa Casamance tamit gis naa seen taxawaay ci waa saalum bi xam nga waa jaxaw siin ñooñu moom aw ma seen fay waa Maraneem waa Fatick xam nga képp ku may jàppale gis naa sa taxawaay naan leen ngeen yokk ñaani rek ñun ay xale lañ te soxla nañ ko bu baax a baax a baax a baax gis leen ay xale lañ soxla nañ ñaani bu baax a baax euh, moom Fils de Balla di ko ñaanal wér ba mu dellusiwaat ci làmb euh, wéyalaat carrière bu baax a baax. du coup général làmb noonu la metti na nag waaye bañ a bàyyi rek nekkaat ci. di leen jaajëfal bu baax a baax comme ni leen ko waxee rek lépp loo xamante ni ci làmb la bokk ak daf ñuy ñor te daf ñuy intéressé ba tax na ñoo leen jox dig daje ba beneen yoon ci wasaare làmb jërë ngeen jëf.